mom lañ faat papa ji rek mom ki di papa ji rek koñ bi ni ni duñ basuma basuma mbare su ko non ko abide iba famale ja nafiyo nafio ko pikin a day mbok senegal tay ku daanu boy ba yen ngeen gënee ko xam ci Aziz Dabala bi kon Ndeye Gueye tuddee di Diop ci kaso bi Pikine am problème ñaar yëpp benn neexuñu si ñaar yëpp benn neexu te ñun même bu ñu dee booy si ay booy banlieue lañ Ziguinchor yëpp bu ñu ñëwee banlieue bi li ñuy dëkk Grand Yoff Pikine Guédiawaye mais là man j'ai mal parce que les années quatre-vingt-dix-huit plus précisément

Il n'y avait pas d'agression à Pékin. Ablaye Wade ñëw yak ko ñëw ni droit de l'homme te Aziz bo len vérifier portable fek ci sama numéro ndax c'est dans le monde art monde art mom terna ko maîtriser té dem ñetti affaire amono dafa mystique quoi ci man Ousmane Sonko wo artiste recevoir len Sidi Diop nga ci bi Aziz Dabala rendi nañ ko léegi nag yenn le li fi xewoon 1998 foog naa ne looloo mën a régler problème yow nag mi nga xam ne yaa rey Aziz yow mi rey Aziz yaa xaw ma kan ko def man de dinaa jël benn affaire foo mënti nekk dinaa la fa fekk rey sa ndey foo mënti nekk foo mënti nekk bii moom affaire personnelle laa koy def foo mënti nekk dinaa la fa fekk ndax nit ku jëlee jarbaatam sutura renga boy bu am fit nak dama <laughs> il ne se laisse pas faire plaignant la dignité moko gënal lo gis fan yële passé def na fi vidéo ba tuddu tour ma woko suuf ne wa grand ndaxte ñoon ndaxte na ma ndaxte mu ngi fofu mën nañ ma man samay cousin direct ñu ngi Pa Moussa je de passage ñoom Pa Moussa Sidibé ndeysaan sama grande série ya leen gis de tey laal nañ ma de <laughs> buñ ma laalee ya, moom da <laughs> ngay waaru affaire bi dafa ya. ma choqué moo tax jobiwu ma tey parce que 3 heures du matin iya, ko si téléphone bi ba fajar ak enquêteurs yi yëpp iya, affaire bi ñaawoon yéen ya, nag jeunesse Pikine ñoo mën a jël suñu responsabilité yéen iya, a jël responsabilité def liñ fi defoon droit de l'homme ak yëpp nañ ko teg si suuf gis nga ku rey bu fekkee Pikine la dëkk ba kër ay wajuram dañ ko war taal mo brûle tout gis nga buñu taalul kër wajuram bo len taalé tay kër wajuram ëllëg bu keneen bëggee genn ci kër bon ay wajuram ñokay bolé xewon na fi Grand yof ndaysan sama grand yi defoon erreur bu xex dañu jam len ñu dem ray mais laj len biñ ñëw dañoo taal ba taal seeni kër genné len Grand yof lolo daan xew senegal mais légui lepp droit de l'homme affaire bi nak droit de l'homme du ko monsieur le président Bassirou Diomaye Faye population peine de mort la peine populaire soit dañuy def à la thiessoise automatiquement on s'en fout de la police et de la gendarmerie soit peine de mort am man de Aziz j'apprends quelque chose de personnel je coupe toutes sortes de relations défier non lii mooy loi lii du loi man gëw seen loi yi ngeen gëm je ne pas à ça je ne crois pas nit bu demee ba toll fii sañ dugg ci kër rey ñaari nit kooku moom faal tëj ko prison man may yónnee samay doomu xaalis ñu may dagg ci impôt di ko jox moom muy lekk man loolu laa dul def sénégalais yi coono bi ñu nekkee di dagg impôt di jox criminel dame xaraam bu mel ni muy lekk duñ ko def on va les tuer eux tous wa on va les exécuter yéen grand yi nekkoon seras daral ngir yàlla jëlaat leen Pikine en mai ni leen Abdou Diouf bàyyi laay Abdoulaye di dëmm bi moo ñëwaat andil ñu affaire du droit de l'homme yàqalaat ñu suñu dimension bii heure agresseur waratul woon am Pikine ba lii tey diñ ci fekk moo tax nag damay ñaan de procureur Sidi Diop bu taxawee ngir yàlla rek bàyyi libéré ko quoi ngir yàlla li lay wuru suli libéré ko dina dem auto école wuti permis c'est pas le moment sincèrement c'est pas moment te nekkul ci Sidi Diop ngeen di montré seen doole wala di montrer exemple ce petit là non non non man je ne suis pas d'accord accord gis nga man dal ci booy yi ay waal yi Sidi job non loolu bàyyi leen ko affaire fancy mais yéen justice pour montrer l'exemple ou faire quelque chose da ngeen di ñëw ci Sidi job waa léegi bal baal leen ñu àq waa léegi baal ko àq waa léegi baal ko erreur la def mais quand même doomu Idrissa Seck bi ngeen bayyi limu def Sidi job deful gen walu gi waxtan wax deug neex yalla quoi sincèrement c'est pas Sidi job qui doit vous qui qui qui doit servir de cobaye man deug ma ma sonal so xénal non foog ñu wane leçon quel genre de leçon mais allez faire foutre avec vos leçons c'est avec ces job que vous allez montrer que vous avez des cobayes te accident yaa ngi am ba négatif du ko d'accord Boy, bi du des si kaso bi génn libérer le boy bi mu dem mu def outil permis boudé amna permis Gambie tam mu dem changer ko ñeu def ko permis Sénégal mais on s'en fout gënal nañ ko permis Gambie bo leen bëggé légui permis France ñu gënné ko ko 1400 euros lay fay léegi antidaté ko yónnee ko permis c'est comme de l'eau donc nekul boy bi mo ñuy jël exemple man dëgg ma ma sonal da ngay woté di ñaan ñu nan non c'est pour montrer l'exemple yow da ngay woté di ñaan day intervention ay kilifa non c'est pour montrer l'exemple à travers ce petit là ñu ne pas d'accord je ne serai jamais d'accord soyez solidaire il faut que vous soyez taxaw bu police di def enquête yeen nit def enquête man ma ngi def sama enquête suma ma ko njëkkee teg loxo police du ko gis dina ko rey ni mu rey xam nga moom dafa rey vidéo woowu yow mi rey bu ma la keppee désormais ay Pikine nag caaro yëpp damay raxas ndayu lépp que l' état soit d' accord ou non eh, di ngeen fi dégg ay série de meurtres si biir marché yi je m'en fous agression yi day dag yéen ñi agresseur di ñibbi Kër Massar route de te waawoon Pël Kër Mbay Fall eh y' un certain boy bu ñu naan laat sek dégg ya nek di mené yalla baxna man mom je vous promets le feu yéen agresseurs yi bu ci état djogul ni je m'en fous je vous promets le feu te dina dem ministère de l'intérieur, de l'autorisation, autorisation fi ma waré jëlee autorisation jëlaat boy teg leen sur le terrain ñun duñu xex nday pour rewmi stable ba paré ngeen bëgg a ñëw ñu génn leen ci kaso bi ngeen naan légui pays de droit la bo reyee dañ lay tëj dama leen ni fekk ci mbedd bi ren sen nday wan wan affaire bi je ne vais pas laisser bi moom bu leen neexee na ma état wax lu leen neex bu leen neexee na Sénégal wax lu leen neex ki rey Aziz jàpp leen ne buñ la tëjee si kaso bi seen waa kër fu ñu mënti dëkk dinaa taal ndeyu kër gi bu fa say waajur dëkkee sax je vais les brûler su mu leen ko waxee rek takk leen ko téere j'en prends personnellement Sénégal li fi xew day dagg ci A wala ci B ça va s'arrêter de force ou de gré